que ni ñu ko doon waxee léegi les questions de de justice yoo xam ne génn na fi ci régime bu bees bi nga xam ne ay euh, euh, disons rapport wu OFNAC ak yu demee noonu mm-hmm. vraiment Adama je je te rejoins ci li nga wax mm-hmm. ak doyen aussi il a dit la même chose c'est-à-dire il faut pas jeter les gens en en vindicte populaire quoi cest dire ñëw rek woo daal di jël ay jaambur yu nga xam ni peut-être tudd nañ leen ci dara parce que seen liggéey la mm-hmm. te loolu amoon am na ay jafe-jafe yu ci amoon nga ñëw teg leen ci di biir marché bi weer leen wane ni ñoom dafa am lu ñu def xam nga saay-saay waxul dëgg ma yàq na xol am na nu nga xam ne même bu fekkee ni il n'est pas prouvé que jël nga il est absolument certain que ni boo ca génnee sax ñu justice setal la sa def dootul set bu mukk j'en veux pour preuve le, la, la question Mamour Diallo mm-hmm. Mamour Diallo foo ko tudd Sénégal ñu ne ah, 94 milliards yi jël na lii jël na lële alors que il est absolument clair que demeewul comme ni ko ki ko doon wax bi premier ministre bi à l'heure actuelle ni mu ko doon waxee amul parce que moom dafa taxawoon fii janoog sénégalais yépp ni moom am na numéro compte am na banque bi ñu ko dugal su ko justice kiiwul dana woo presse bi jox teg ko ci seen loxo yàggul ba bërki démb la il est incapable de le faire donc tooñ na jaam bu ba ca kanamu yàlla tax na kooku foog naa dañ ko dafa démissionné xam nga dañ ko mujj dañ ko mujj limogé loolu yépp yàq liggéeyu jaamur alors que je pense que justice am na ay euh, euh, nu mu tudd disposition yu mu jël état Sénégal pour nit bu defee naka su dul noonu ci liggéeyukaayam maanaam une mauvaise gestion mm-hmm. il y a des sanctions administratives mm-hmm. qui sont prévues mm-hmm. su fekkee nii dafa dem ba gën a graaw ba nga xam ni xam nañ ni kii dafa luubal am na ay sanctions judiciaires yoo xam ne dañu ko teg en place donc li normal mooy état am secret am jaanu biir loolu moom manqué Sénégal ban foogoon naa ni rupture bi bi ñuy wootee ñoom loolu moo ci njëkk maanaam état nekk état bu nga xam ni du lépp lu xam ci biir lu muy def rek daf koy génne ci diggu mbedd mi bu ñu décidé tey dara balaa ngoon journaux yëpp jot ci wala euh, réseaux sociaux yëpp jot ci. loolu kay amul rupture loolu fi ma sa xew. dañ ko toppal rek même chose la. te loolu bokk na ci li nga xam ne ah. moom la Sénégalais yi gën a soxla.